dal leen ak jàmm guerre de trois Macky Mimi yaa xam moo nekk ci xët u njëkkul observateur journal Futur Média bi ne ñett ñu doon ànd démb ñoo taxaliko tey ba seeni mbir jëm ci yoon Aminata Touré mi mënta wanaasu ba tey na mu jógee ca Benno Bokk Yaakaar moo tax ba dara du ko may ku fa rek Benno Bokk Yaakaar rawatina candidat Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi ne ci ayu bés bi ñu weesu journal la Soleil te yaa xam mbay di ko jiite dafa xëy bind cew xëtam ne Amadou Ba am na lu ëpp ñetti millions yi parrain ci parrainage yi Mimi bi mu ko liiree la jàmmam jeex ndax ne du dëgg yamul foofu dafa porté plainte journal Le Soleil ngir ñu toppi ko fësal xibaar yu wérul li wér te wóor moo di APR ga ñu bokkoon ñoom ñett di doxal démb la am fukki at ak juróom journal Tribune nekkoon it prox ndoll ci jigéeni APR yi ñu yóbbu seeni parrainage yéeni kaay bi ne ci njiitalul Ndeye Sali Diop Dieng jox nañu Amadou Ba téeméer ak fukk ak benn junniy parrain ba noppi dik ko lu ni mel keroog élection présidentielle yu atum 2024 élection yooye moo ngi gën di jege gannaaw bi caution yi Vox Populi ne nekk jamono ji sele yoonu noonu gaa ne mbër lañ bëgg a doon ci yooyu la élection Déthié professeur Daouda Ndiaye ba ci yeneen i joxe nañ démb seeni caution fanweeri million ci mën a gut joxe caution kay moo di Ousmane Sonko enquête le quotidien bés bi le soleil libération les échos vox populi turbine ba ci l'observateur ñoom ñëpp xëy dinu xibaar ne Ousmane Sonko rabat d'arrêt bay avocat yóbboon ca kanamu cour suprême cour ba rejeté nañ ko turbine ne moo tax ba fi dàq bu juróom-ñetti fan ci weeru décembre yu nu jëm l'observateur moom xëy di faram la enquête ba wax ci ay mbiram itam ci la source a xëy di wax ba ñuy xibaar ne démb ca tribunal moom oustaz Omar Sall dafa meloon ni kuy def show ca kanamu ñu ñëwoon di ko jàppale kan mooy jàppale nguur gi ca péncum ndawi réew mi di assemblée nationale si du quotidien bii mooy ñaari yoon yu tegaloo nguur gi di adopté projet de loi de finance te joxul député financement bu hôpital bu bees ca Bakel jur na coow journal L'Info ne marché gré gré bu téeméeri million ci xaalisu euro lañ ci tudd ministère de la santé lépp aju nag ci tabax hôpital bu bees ca Bakel ak dil bu ne moo am ci matériel médical bu toll ko juróom-benn fukk ak juróomi milliards ci xaalisu CFA L'Observateur ne Afrique conception distribution gën ca tudd seetal nañ seen bopp ba noppi di leeral na mbir ma demee dëgg-dëgg Asietu Kase Jum may directrice ba ne ñuy wax surfacturation teguñu ko ci benn base mu yokk ci ne marché 52 milliards yi tax ñuy wax loolee ca wax képp lay am amul benn yoon bu ko ministère de la santé validé te bu garab yi doon fàq suuf si jalaañoo itam mbindeef mënu fee teg leneen ñu dem feneen wax ci leneen muy COP ba ca Dubaï le soleil national ni njiitu réew mi di président Macky Sall jël na fa kàddu yëkkati baatam di artu ak di layal déndu Afrique ngir ñu gën leen a dooleel te bañ leen a jëfandikoo ak di leen tënk ñu fekkaat ko ci journal L'As mu fay wax lu ni mel wax ji enquête xëye moo di événement Thiaroye bi amoon benn fan ci weeru décembre atum 1944 journal bi ne juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent ak léegi taarix du ko fàtte bari woon na sunu maam yun ca boom te ba tey bari na lu ca lëndam ñi seen ëllëg lëndam ñoo di ñaari vigiles yi ci les échos journal bi ne ca këru courant gii di Excelec dañ faa sàcc juróom-ñaari transformateur électrique yuy jar benn bu nekk fanweeri million ci xaalis CFA gars yi sàcc ko jaay ko benn bu nekk benn million yéenekaay bi ne fi tollu jàpp nañ ca ñaari vigile ak ka ko doon rawale ci ñoom même situation bi te pourtant benn la ma leen di ni carrément kat seen avenir moo nekk en ca loolu ñu ngi leen di woo suba bu neexee yàlla ca 9h bu jotee ci fi nga xamante ni mooy yi ngir ngeen ñëw ci marche bi nga xamante ni seen marche la pour xeex li nga xamante ni mooy injustice ci altine ji naam policiers yi terewoon nañ leen ñu campé ci ay tente ci kanamu université bi ci ordre recteur sortant bi di May Diaw étudiants yi ne fi mu nekk nii xeex bi dañ koy wëyal duñu bàyyi dara mu sedd Bambey RFM Babacar Diouf. li nga xam ni moom moo daal di soxal ay journaliste correspondant ci euh, région Sénégal nag moom la ñu tekk ci tabalu euh, coordination bu boole association de presse di CAP nag sox euh, jot na déglu lu ëpp ci ñoom daal ci région centre daal gannaaw waxtaan yu yaay yi nga xam ne ko jot amal ci ëtt ci tasum xibaar ci Sénégal di assise des médias. dina def def yoo xam ne ci ëpp mooy anam ñu doy war yi nga xam ne moom la ñu liggéeyee ñoom ñii day correspondant Ibrahima Lissa Faye euh, bokk ci kab boobee ci micro ko mu nekk ay travaux yoo xamante ne ku ci xalaat wax nga say jafe-jafe am na aussi ay solutions yoo xam ne jot nañ ko proposé maintenant nag loolu yëpp dañ koy daal di tënk dugal ko ci li nga xamante ne mooy recommandation yi nga xamante ne moom la ñuy war a def ci assise yi ñu saytu ko xool vraiment naka la ñuy def pour condition wu journalistes yeeg acteurs des médias yi gën ñoŋ li ci ëpp mooy maanaam condition de travail yi ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la correspondant yi di dund ci biir région yi et ñoom dañuy naan vraiment il faut ñu considérer leen ñu am ay contrat en bonne et due forme comme ñëpp loolu moo tax d'ailleurs sax en fait lii di commission 2 bis nga xam ne mooy wax wàllu statut des travailleurs ñu xeex vraiment ba dugal ko ci fexe en tout cas bu mu am ay conclusions yoo xam ne am solo lay doon convention collective bi wax ci lii di euh, cotisation sociale bi wax aussi ci retraite journaliste yi parce que retraite aussi lu am solo la et yaakaar naa ne yooyu ponk ponk noonu buñ ko lijjantee fexe ba ñu di ko appliquer rek métier bi dina gën a am solo tournée nationale bu centrale syndicale FGTSB ñu nga woon ca Kaolack ni ki dem nak ngir waajal seen élection fukki fanak ñaar ci weer wi lañ ko war a amal Mballo Dia Thiam jiite ko nag daal fësal taxawaayam ngir gën a taxawu lépp luy àq yelleefu liggéeykat yi waaye tamit askan wi waaye tamit bokk na ci li nga xam ne soxal na leen mooy njëgu dund gi njëgu courant beeg euh, vote bi nga xam ko war a daal di wote loi jëm ci médecine traditionnelle ak yeneen ñu déglu Malo Dia Thiam ci micro beeg Fatou solo bi ne ñëpp xam nañ ko fi Sidia Ndiaye tegoon tànkam dañu bëgg teg suñu tànk. pour que bu ñu voté le 12 décembre ñu am lu ëpp 10 pour cent maanaam ñu am fukk. parce que nguur gi moo ni ku amul 10 pour cent nekkoo seen central syndical représentatif du ko mën a wax ak yow donc nag jar na nag pour que ñu dem xeex ba toll foofu. Euh, parce que ñi ñi gagné yi fees weesu. Euh, gis nañu ni euh, dund gi cher na déggu dégguñu leen ci syndicat yi dañuy xeex xeex ba ku nekk. nekk sonn noppalu bu mais central syndical du ñëw seen wet ñun loolu la ñu bëgg mu soppeeku moo tax ñun dañuy tabax beneen ñetteelu yoon yoon bu nga xam ne nekkul di ànd ak ngóor gi rek wala yoon bu nga xam ne xëy na day seetaan travailleurs yi wala duñu duñu jëm a lijjanti problème population yi parce que problème population yi mooy problème mu travailleurs parce que travail ci population yi lañu nekk loolu daal mooy solo suñu déplacement yi suñu tournée bi Euh, yaakaar ni nag ñëpp nañu mobiliser wu pour que le 12 décembre ñu voté ñu voté FGTS B pour que Sidya Ndiaye gën a tali parce que li mu bëggoon mooy am 10 pour cent euh, nee nañ aussi ni ñu voté benn loi la médecine traditionnelle loi bu am solo surtout am na nee ñu bëri sax nee nañu feebaru roño yi nee nañu am na ñoo xam dañu dem tradition boo leen ko jox loolu man mënu ma wax ni loolu dëgg na wala dëggul waaye li am solo mooy médecine bu mel noonu war nañ ko réglementer 8 heures teg na fukki simila ak ñetti fi ci rajo bi ngeen taamu RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. wàllu fiscal fi ci Sénégal ñu koy saytu day yëg di wàcc diggante 2013 ak 2021 waral na la ba ñu jàpp ne li ko sax waral mooy am na loo xam ne ñoŋul foofee ca douane euh, leeral li ak Amadou Sabar Ba jot na yër euh, yenn ci ay xëtu rapport révolution bi euh, ci atum 2021 ñu déglu ko. lii di dépense fiscale. Sénégal gis mu jóge ci ñaar fukk ak juróom dem ci fukk ak juróom benn ci téeméer boo jël ba tey ci boobile période lii de régime particulier yi moom gisoon nañ ci yokkute inégalité maanaam ñàkk tolloole goo xam ne ne gis nañ ko ci doon joxee dépense globale yi rawatina ci entreprise yi ci lu soxal impôt bi nag mi ngi gën a fës ci wàllum TVA bi maanaam taxe valeur ajoutée gis nañ ne ci tolloon na ci juróom-ñeent fukk ci téeméer boo jël ci dépense fiscale yi boo koy xayma ci xaalis toll na ci juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti milliards ci suñuy koppar ci wàllum administration ak yokkute lañ gis ci yooyu les dépenses waaye daal ak wuute goo xam ne ne dox na ci diggante téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari milliards ci suñu koppar ci atum milliards atum ba mu jega mu nekk ci milliards ci atum waaye ci wàllum douane wute na loolu ca la ca gis ci lu soxal nag secteur économique yi nga xam ne noonu lañ doon séddale yooyu les dépenses gis nañ ne secteur primaire moom moo ci gën a fës buñ ko xayma toll na ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn milliard ci suñuy koppar boo koy xayma ci dépenses fiscales ñeent fukk ak juróom-ñett ci téeméer boo jël loolee nag mi ngi gën fës ci secteur extractif yi maanaam secteur minier bi bu ñu sukkandikoo ci rapport d'évaluation budgétaire bu dépense fiscale bu année ci lu soxal ménage yi xayma nañ ko jotum 2021 ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari milliards ci suñuy koppar ñi nga xam ne ñooy collectivité publique yi doon gën a fës ci ñetteelu place bi bokk na ci ñi nga xam ne ne ñu doon ëppale ci yooyu les dépenses mu ngoog ne lu mu sax bëgg moo ñu gën leeral wax yan at yom euh, moo mënul ñàkk ngir daal ñu jàpp ne nit ki euh, dafa def délit waaye tamit daal di encadrer lépp lu jëm ci légitime défense docteur en droit privé ak euh, jot na nag fësal ab téere ci ñaari tom mu tuddee ko infraction pénale benn bi maanaam li nga xam moom mooy ay faxasal yi ci ne ak beneen bi mu tuddee responsabilité pénale ci wàll woowee Abdourahmane Diallo ci ay leeral. ginnaaw bi mu gisee ay coppite yu bëri ci lu jëm ci wàllum droit pénal général docteur Papa livre xaaj ko ci ñaari pàcc bu ci njëkk ñu tuddee ko infraction pénale beneen bi responsabilité pénale ak sanction pénale maanaam daan yi nga xam ne mën nañ ko teg nit. boo seetloo lu ñuy wax bracelet électronique lu bees la ci droit bi boo seetee am na ay évolution yu bari ñu ñuy wax lu ñuy tudd criminalité organisée régime criminalité organisé mosul am Sénégal c'est à partir de 2021 la ñu am benn régime de criminalité organisée mais bi ma seetloo réforme yi bari na trop mais livre boo xam ne dañ ko consacré ci droit pénal général ci Sénégal boobu secrétaire général adjoint bu gouvernement bi jàpp ni war na am ay coppite yi nga xam ni war nañ ko mën a yokk ci droit pénal général bi. suñu droit pénal tey at bi nga xamante ne dañuy jàpp ne euh, ki nga xam ne tout tànk la amul benn responsabilité pénale at boobu dafa leerul trop ci droit dafa leerul te juge yi boo xoolee niñ ko gisee ku ci nekk da am sa gis-gis. mu proposé yi it lu ñuy wax légitime défense au bien tey nit di nga toog sa kër sàcc dugg sa biir kër am lu mu fay jël ndax yow yoon may na ndax dóor boobu nga ko dóor yoon dafa la ciy topp wala déedéet. inspecteur général d'état bi xam le ni tamit coow yi nga xam ne dañ koy nemmeeku saa su ne bu ñu joxee dogal ci lu jëm ci wàllum yoon li ko war a mën a wàññi mooy texte yi mu doon lu leer. parce que justice ñaar ñoo ko séq te juge il faut mu rendre benn décision dans un sens bu rendre décision ci benn sens ah dina am koo xamante ne du d' accord ci décision bi bu boobaa kooku peut-être mën naa bañ a d' mais lii tax ñu moytandiku ay wuute ci décision yi ñuy rendre wala ñu am ay wuute ci texte yi mooy na texte yi leer. docteur Papa Assane Touré ci ab ndaje boobu nga xam ne dafa doon fësal livre bi dal na ci delloo njukkal li nga xam ne mooy magistrature Sénégal. xam ngeen ne teg ne teg nañu ne la requête Rabat tax. daalit duma ci lii parce que nit ki sub sababloo def li mu war def dox ko wax ko jëfe ko yàlla lu mu sottal mooy sotti lu mu sotti lu du sotti. élection 2024 Khalifa Babacar Sall ca tournée ca région bu Matam moom mi jiite taxawu Sénégal nag di naqarlu euh, ñàkk taxawu ñi ay libéraux te kun libéraux wax ñii di waa PDS ne nag ñaar fukki at ñaar fukki at ak ñett kon président Macky Sall génn ci ñoom ñoo daal di yàq euh, lépp jëm ci développement socio économique foofee ca Fouta Khalifa Sall nag ne am na yaakaar ci génération bu bees bi ngir ñu fexe daal ba yëfi dellu ca parti socialiste gën a defar réew mi neexale kalibandit ñam troxtaange bi askan wi yeewu ci région de Matam nekkee buñ ko jooyee kenn ku dul régime libéral wu maître Abdoulaye ak bu Macky Sall bile lii ay kàddu yi nga xamante ni Khalifa Babacar Sall moo ko yëkkati ci tournée bi mu tàmbali ci région bu Matam mu ñaawlu nag sentiment d'oubli maanaam ñàkk fulaal gi mu gis ni nguuru libéral yi fii toppante ñoo ngi koy teg ci askanu Matam suuf saa ngi fi macha allah Matam am na phosphate nan la béykatu Fuuta war am problème defaat boo xam nag c'est à fleur de sol c'est-à-dire du koom sax bu cees dañu war delloo région naturelle Sénégal yi seen vocation parce que réew mi pour mu dundal boppam te daf ko war def fàttali rek fii c'était une zone industrielle yaa ngi li ko SNT yeeg yooyu société tomate ak yépp fi nekkoon nit ñi di ceeb am lu ñu dundee mënal seen bopp loolu lépp dakk na fi tey pourquoi parce que les gens ñu priorité li nga xam ni mooy permettre askanu Fuuta ñu mënal seen bopp moom seen nangu suñu nit ñi bay seen tomate ba pare rek jël ko ci kaso rek jaay dañ koy transformer muy ci ceeb bi muy ci légume bi muy ci parce que loolu lépp fi amoon xam nga biñ daan xëccoo Mauritanie ñaari deux rives yi lan la woon maraîchage beeg yooyu ñu boole woon rive gauche rive droite mani nañu delloo si Fuuta la mu yelloon. gannaaw dëkk yu mel ni Dancadi Khalifa Ababacar Sall mu ngi tàmbali tournée bi ci dëkkub Ourossogui Ourossidi laata muy yegg ci fi nga xam ne moo di samedi bi ci Matam beneen mbir bi nga xam ne nemmeeku nañ ko mu safaanoo lool ak tukkib Malick Gakou wala maître Moussa Diop Diop cortège u Khalifa Ababacar Sall moom bi ñu duggee maatam ba léegi ñu ngi tourner librement amuñu benn jafe-jafe ak takk der yi mu ne kon sa naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM Amadou Ba yegg seen a démb ca Touba daanaka kenn ko woon euh, moom nag di premier yegg seen a démb ca gox bu sell boobee euh, ci lu àndul ak euh, benn bruit buñ sukkandikoo ci xibaar yi suñu correspondant foofa ca Touba moom mi di candidat wu benn bokk yaakaar nag kii di porte bu xalifa général démb jot na ko dalal di Serigne Bassirou Abdou Khadre waaye ba tey xamuñu. ana lan moo fas ci yooyu lay waxtaan. RFM Sport. ñu dem tàggatu ànd ak Youssouf Bodian. ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu dooree ak championnat du monde handball ci jigéen ñi Sénégal démb dafa def match nul euh, digganteem ak Croatie ku nekk dugal sa morom 22 buts match bi nag Sénégal moo ko dominé bu muy door ba bu muy jeex ci mi-temps bi sax gaynde yu Sénégal ëppale ñaari poñ waa Croatie waaye ñoom dañoo égaliser laata match bi di jeex ay secondes rek ñoo desoon ba tax na kon seen sélectionneur am lu mu ci rëccu Yacine Messaoudi lay wuyoo. dëgg la mën nañu am euh, déception ndaxte match yi jiitu ñoom ñuy fekk euh, waaye bu ñu xoolee bu baax a baax euh, match bu baax la prestation bu baax ndaxte euh, dañoo gaaw a ak carton rouge bi Fanta Keita jot waaye bu ñu xoolee ba ci biir daanaka prestation bu mel nii jàpp naa ni moo gën a baax ci taarixu Sénégal ci histoire u handball fii nii waaye étape yi ci topp nag mooy bu njëkk bi récupération nañ noppal bu baax a baax Suède moo ci topp Suède di équipe bu baax a baax te man jàpp naa ni sax euh, dina bokk ci dernier carré bu compétition bi euh, liñ ci jublu nag mooy am emmagasiner expérience bu bëri fexe ba pousser leen ñu jouer bu baax a baax waaye euh, nañ ko xamee noonu Suède équipe bu mag La Suède c'est une équipe de grande grande grande fukki but ci ñaari fukk ak ñaari Sénégal euh, dugal euh, kii di Dungu Camara moo ko dugal moom sax mooy joueuse bi gën a ràññeeku ci match bi. mosul ñëw sama xel ni man naa mos doon euh, joueur tey jii bu ma doonee meilleur joueur dafa fekk ne collectif bi yëpp ñoom ñoo joxe lépp lu ñu am équipe bi grâce ak ñoom équipe bi tey gis nga ni ñu demee compétition tey bi ñu doxalee tamit match bi cinq à dix minutes ñu daal di ak fant mi nga xamante ne bokkoon na ci match bi ñëpp daal dañu joxe lépp lu ñu am te yaakaar naa ne loolu moom mooy def différence <laughs> bu dul dara sax esprit gaynde ñun dañu ko amee li ñu wax moom mooy match bi dañu war a def suñu kéemtalaay kattan pour gagné ko joxe lépp lu ñu am ba ba muy jeex léegi nag lu jëm ci arbitrage bi ba tey mën nañ ci wax ak ni mu demee gis nañ ñaar ba ñett action yoo xamante ne euh, laata match bi di jeex euh, loo xamante ne daal suñu suñu ngëneel la wante gis nga ci égalisation euh, li ñu mujjee noonu demee. mondialisation kaddu Dungu Camara kii di Koumba Sagnane fay moo ko euh, tekki euh, Sénégal kon na amal ñaareelu matcham ci championnat du monde euh, handball digganteem ak Suède di benn ci réew yi organisé coupe du monde boobule match bi suba ci dimanche bi de doon bu 17h jotee. football Al Hilal moo gagné match bi gën a fës ci 15e journée Saudi Pro League club bu Kalidou Koulibaly dafa daan Al Nasr bu Sadio Mané ñetti bal ci dara ñaari internationaux sénégalais yi joué nañu bi ba mu jeex waaye doom Serbe bi di moo ci ràññeeku ndax ñaari bii la dugal Al Hilal ba tey amula defet daal di euh, gën a yaatal kon poñ yi mu ëppalee Al Nasr mi nekk ñaareelu place bi léegi juróom-ñaari poñ moo nekk seen euh, diggante euh, club bu Sadio maane bi sax mun na ñàkk ñaareelu place am boobule su fekkee ne Al Ittihad bu Karim Benzema am na ndam ci samdi bi. saison bi jeex na ci Bouna Sarr di latéral international sénégalais bi am fanweeri at ak benn dafa am lii di rupture de ligament croisé club bi di Bayern Munich moo ko xamle mu yokk ci ni défenseur sénégalais bi amal na opération bu jaar yoon gaañu gaañu bi sax ñu jàpp ni mooy doon kon njeexitalu aventure bi foofulee ci Allemagne bu Bouna Sarr ndax moom contrat juin bi lay jeex Bouna Sarr nag depuis 2020 la dem foofulee ca Bayern Munich fukki match ak juróom-benn cote la jot a jongante Sénégal sixième journée bi tey ci samedi bi lay door ak ñetti match 16h30 stade Iba Mar Diop Jaraaf mooy dalal Génération Foot Jambaar Tëngëj FC ca stade Lat bu Thiès leader bii di Dakar Sacré-Cœur moom mooy dalal ñi di euh, stade de Mbour ca stade Alassane Djigo dimanche la ñuy wéyal match yi bokk na ci AS Pikine mi fekki US Gorée ca stade Iba Mar waaye comité de supporters AS Pikine nee na day boycotté match bi li ko waral mooy nee nañu kon biñ fa ñëwee daaw di jongante ak Jaraaf lañ leen toroxal janoon nañu ak tasatu xibaar yi ñu déglu ci Salamata Ousmane Diallo nañu contre Gorée daaw dal nañu contre Jaraaf daaw ak daawaari yéeg contre Jaraaf aussi trois fois de suite dans ce même stade. ay violence yu bëri la ñu jël di ko teg ci seenug ndoddu loolee ñu jàpp ni ak injustice la te boobee ba tey ji mu toll ci ñaari at supporter AS Pikine daal di wutal seenug bopp ak saafara ci seen jafe-jafe boobee tribune yu stade Iba Mar Diop bu Ndakaaru du gis couleuru ASC Pikine ni ki dibeer ñetti fan ci weerub décembre bi Moustapha Seck mooy président commission supporter AS Pikine. dañoo jël décision ne duñ dem stade Iba Mar ndax tàmm nañ ne heure stade boobu rek dañuy agressé suñu supporter gaañu mu am ay xeex ay sànni xeer dem nañ sax balaa dernière fois les services de maintien de l'ordre ñooñu doon dóor ay lacrymogène gaz ñun d'ailleurs am na benn vidéo bu circulé sax booy mi ngi jóge ci kaw tëb ndax daat yoon la ñun ñu toog xoolaat suñu bopp xam ni ñuy doxalee moytandiku saa su nekk rek ñuy jël jafe-jafe yépp di ko toj ci seenuk ndoddu ñoom supporters yi daal di jël ndogal des ci seenuk dëkkuwaay daal di seetaan match bi à distance jaarale ko ci benn fan zone ci boo xamante ne dafay prôner le fair play kon donc ñun waruñoo dox ci lépp loo xamante ne day am violence moo tax nag cette fois ci ñun ah dañuy toog suñu dëkk wa supporters yi ñu toog seraandoo match fii quoi Ababacar Señaan moom mooy woykat ci troupe Asikoman bu AS Pikine kàddu yi ni mel la daal di yëkkati deftar ci sax nag di wax ni bileeg ndogal bi ñu jël ci goréen yi lay metti ndax dina tax daal di ñàkk ay koppar yu bëri lu jëm ci wàllu billet yi. li ma ci métti rek mooy gore du am xaalis parce que gore lu mu bon bon billetterie boobu mënoon na ci jëriñu dara fay ci ay transport xëy def ci li def parce que loolu yëpp lu ko waral waa Médina ñu leen koy def saa ñu amee mat foofee ca stade Iba Mar naka noonee ñu daal jël seen ndogal daal di boycotté boobu lekk stade ba saa yu ngeen wutalee ak saafara ci seen jafe-jafe boobu lay salamatu Ousmane Diallo Pikine rajo Futurs Médias. Ligue 2 bu Sénégal juróom-benneelu bëccëkam tey ji samedi bi la koy door affiche moo am Oslo di dajak Demba Diop FC stade municipal Parcelles Assainies SNEIPS Excellence de Thiès euh, mooy dajak euh, Ndiambour ca stade Maniang Soumaré NGB Amitié FC stade Amadou Barry Kër Madior HLM bu Ndakaar stade Caroline Faye Duc di dajak